من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة mbokk yow moom di topp sa concours national xayma xam-xam ñu ngi lay ziar di kontaan ci yow bu baax a baax di ñaan suñu borom may ñu koor gu ñu nangu tey nag ñu ngi nekk ci ñeenteelu jongante bi Oh, damay bayyi mbokk yi ñu dem ci liggéey bi ndax waxtu yi moom day gaaw a xaj bismillah ya oustaz ibrahim bismillah arrahmaan arrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي درسي واتنا نتين بنا يون جسين متسابق بيتا ينجين ديكو توب tey amaat nañ fi yeneen gan ñu bàyyi ko ci yeneen gox kon ñu bàyyi leen ñu présenté wu seen tour ak seen sant ak gox bi ñu fi teewal insha allahu taala wa tabarak tafadal mashkuran ya axil karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Omar Cissé jógee Kaolack allah barik fiik axil karim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi tudd Ibrahima Sané di représenté région Kolda allah barik fiik الأخت الكريمة السلام عليكم ورحمة الله نعي تدو خليجة سالو دي ريبريزانت ريزون بوتيس ما شاء الله وجزاكم الله خير بارك الله فيكم كون ينسن موضوع بموي الزنوب والأخلاق لبلو أي جمتي والو أي بكر أي جيكوي طيب الأخ الكريم الأمر في القرآن الكريم لأن فك بين آية بني ليرال نجبر bi mu ñëw ci kaw suuf njëkk njëkkub njab njabar ci kaw suuf mooy njabar première fois muy am ci kaw suuf aay bi ko aay bi doon ko nettali bismillahi rahmaani rahim sa borom yàlla nee na wattabau ma tallu shayatinu ala mulki suleyman wa ma kafara suleyman walakin shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sihr wa ma unzila ala almalakayni bi baabil haarut wa maarut وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله دايم جي خصنا بروم يالا نينا نجبر بيمي نك نيو دي كو سوف في ملاكا منام دي بابل هاروم اك اك ماروت خا خامني نيوم دنج كو دون جانغالي واي بوبو بون ndax li ngeen di jàng nii ak kéeféer la da leen génne si lislaam ma sha allah jazakallah xeyran barakallah fiik al akh ibrahim ci al quran al karim benn aaya bu ñuy leeral tolluwaayu rey bakken benn ba tolluwaayu rey benn bakken ci yàlla subhanahu wa taala wala dundal benn bakken tolluwaayu dimension dundal benn bakken wala rey benn bakken fu nu mu toll ci yàlla aaya bi ñu jàng lool insha allah آه، آية ميسي سورة النساء في برم سبحانه وتعالى لنا ومن قتل مؤمنا متعمدا سجبلو وا سورة آية سورة ما إدرنك ولا نبأي بدين يا خدي حمنكو ها بدين يا خدي حمنكو لا آه، من ne wala nga laaj ndax yaa xam ah kay xadija xadija la teewlu nga yàlla subhanahu wa taala mi wax ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ما شاء الله نعم. أنه من قتل أنه نعم ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا جسنا yàlla subhana taala ku rey benn bakken ci loolu ci lislaam reylu dafa mel ni bépp nga rag gis kon dimension bi tolluwaay bi macha allah allah yubarik fiik kon Khadija yow sa sual mooy am na ay nit ñu fi nekkoon ñu du leen wax ñu doon jëf jëfu góor jigéen ci kaw suuf ñooñu yàlla def leen alag aay bi ñuy jàngal ni leen yàlla alage woon ay naam يالله سبحانه وتعالى بني وحنه فخسفنا بهم وبدارهم الأرض نقول قارون لك وهو قارون لك قارون نيت نيلون جف جف غور جيجن تي كاو سوف يالا الك لين دي لين يالا الك اي بي نياغلا و نعم ala kullu hal moom indi na aaya benn quoi ba pare. wala axi bi Umar teewlu nga benn aaya ci aaya yooyu. dama Ibrahim naam. borom bi mu ko si suratu Shuara mu ne wa amtarna alayhim xijaaratan min sijjiil. fa saa matarul mundarin. naam mu koy tàmbali si aaya bi. mooy kaddabat qablahum qawmu nuux qawmu luutin qawmu luutin il mursalin jàppale ko ah, waaw firil ko ay bi ci gën a leer mooy bi ñëw surtout Huud borom bi ne fa lamma ji fa lamma jaa amruna jaal na aaliyaha saafilaha jaal na wa amtarna alayhim hijaratan min sijjin mandudin musawamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id nga ni nan la yàlla alage góor jigéen ah? nan la leen yàlla alage borom bi subhanahu wa taala bu mbir mi dikkee dañoo wëlbati suuf si oh dañoo wëlbati suuf si ci seen kaw bi moo nekk ci suuf la nekkoon yàlla wul bis ba pare yàlla damele ak ay xeer yoom ñu bàyyi ko saw du leen si jin aliyaasu billahi taala wa jazakumullahu xayran ñu dem ci xadis al axu umar yonent bi salallahu alayhi wa sallam xadis waam wax na ko ci gisaane kuy def gisaane wala seet xadis boobu incha allah yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na من أتى عرافا أو أو أو من أتى عرافا أو كهانا فلن يقبل فلن يقبل الله له صلاته أربعين يوما نك وك بجول لي نين فكي فان يالا نانغو من أتى عرافا أو كهانا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر يبقى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مني لولو comme beneen riwaay bi ni mu ñëwee mooy ku dem ci benn gisaane kat wala nga dem ci seetkat nee na kooku wedd na yàlla wedd na la la yàlla wàccee ci yontu yàlla Muhammad sallallahu bu fekkente ne dafa wax na nga gëm la mu wax nag moo yow génn nga diine islam tayib jazakallah xayran wa barakallah gisaane ak seetkat yi wóoru la danger bu rëy la ibrahim bu ñu demee ci ay xadis yonte bi sallallahu alayhi benn xadis boo xam ne yonte bi da doon ñaan yàlla yàlla musal ko ci juróom-ñetti mbir juróom-ñetti mbir yonte sa saa doon ñaan yalla musul ci benn ñaan est-ce que tawlu nga ñaan boobu juróom ñetti mbir hmm. yonte bi da daan ñaan yalla yalla musul ko ci euh waaw ñëw na si yonte bi sallallahu alayhi wasallam yi mu daan def taawud billahi euh, si set waaw bokk na si allahumma euh, di musul yalla ci kéeféer musul ko ci ay ñaawteef ak ay bakkaar ak di musul yàlla ci mooy. sànni indil texte hadis bi texte bi. hadis bi waaw. hadis bi moom mokkal ma ko de. Oustaz jàppaloo. tayib hadis bi Anas moo ko nettali mu ngi saxal Buxaari mu saxal Muslim. bi dajale juróom-ñetti mbir yooyu ah. ñett bi sallallahu alayhi dafa allahumma inni a'udhu bika min al hammi والحزن والعجز والكسل والبخل والضلع دين وغلبة الرجال والعجز والكسل والبخل والضلع وغلبة الرجال كون جروم نيت يوي بخاري موك اندي سي اخ امام مسلم ان شاء الله باخيل غاي سيتان جروم نيت يوي ني موي جروم نيت يوي موي بن موي هم هم موي دي بëgg دار مونو كو ام بëgg كير تولو سي ام كير يورو نجابوت تا امو كير لاي لوي ني لاي گيني رك با كيو رك موي هم dellu saraab bi jur mooy alxasn xasn mooy fotalu di am ay problème bopp jaaxle benn mooy ajz ajz mooy bëgg a def dara mu tëla def lu baax mu tëla benn bi itam mooy taayal taayal ñëpp xam nañ ko benn mooy nay benn bi mooy tapet benn bi mooy am bor yu bëri yu la dominer ba ci mujj mooy foo toll ñu lay koj kon gan kiiru diwam kiiru diwam wal iyaazu billah الاخ الكريم الاخت الكريمه خديجه بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، بو خامني حديث قدسي بو يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ديغنتي بي مودون واخان مبوك مبوك مبوك امنا بين حديث بو خامني النبي دافنا يالا سبحانه دا دون واخ مبوك دا خا تيولو حديث بوبو حديث بيو سي مبوك mboq bi ko yàlla bindee mboq balaa moo wàcc ci kaw suuf yàlla ba mu ko nee wàccal ci kaw suuf am na lu mu doon waxante ak yàlla subhanahu wa taala ndax teewlu nga xalis mooy yàlla da ko wax ne ko képp ku la ku la jokk dinaa ko jokk waaye képp ku la dog tamit dinaa ko dog ustaas nee nañu jàng xalis ba xam ah teewluwuma xalis bi macha allah tayib jazakallah xeyr abi xadisu abu hurayra radiallahu taala anhu mu yàlla moo bindee mbokk yàlla daf ko ne wàccal ci kaw suuf yàlla su mu ne yàlla subhanahu wa taala ah yàlla man de ragal naa su ma wàccee ci kaw suuf li tax nga wàcc ma kaw suuf nit ñi duñ ko respecté yàlla subhanahu wa ne ko mu dalal sa xel mooy wàccal li may digle ku ko jox da dinaa ko jokk waaye ku la dagg dinaa ko dagg mbokk ne bu dee loolu man pare naa pour wàcc ci kaw suuf d'accord allah yubarik fiikum al fiqha insha allah al akh Umar ci téere fiqha yi lan mooy lan lañu wax ci jigéen buy sëy ak moroomu jigéenam hmm. ak góor buy sëy ak moroomu góoram lan lañ leen di attee ndax seen atte benn la ñoom ñaar ndax seen atte benn la ak lan mooy seen atte waaw seen atte benn la loolu dafa araam beneen bi tamit euh, maanaam jigéen buy sëy moroomu jigéenam wala góor buy sëy ak moroomu góoram loolu euh, atte bu bon la maanaam jëf ju ñaaw la bu yàlla bëggul boo xam dafa araam du yàq aw xeet ndax loolu moo daloon xeetu yonent yàlla luut bayal acte bi la mooy dafa araam xadd waaw tayib muy dañ leen di rey insha allah tayib al ax euh, ibrahim ki rey te tey ki nga xam dafa rey nit teyoo ak dafa nit te juum ndax seen atte benn la bu dul benn kenn ku nekk lu ñu ko sànni seen atte lu benn naam ki nga xamante ne dafa rey nit te tey ko mhm. moom lislaam lu mu saxal mooy dañ koy rey ki nga xamante ne dafa rey te teyu ko moom teyu ko kon lislaam du ko toppee atte boobu noonu wallahu alam lislaam daf koy bàyyi mu dem te du ko day def euh, day kafaara bokk na si day kafaara ki nga xamante ne dafa rey te teyu ko day kafaara masala mu dugg ci àll ji àll bi mu bëgg a rey ab gazelle far flèche bi dem laal ab nit te moom gazelle bi la vision kon atte am si lislaam mooy duñ ko rey mais day def kafaara kafaara bi nag. xaw ma foofu kafaara du ci am kooku diye lay joxe incha allah. diye lay joxe ah. tayib macha allah jazakallah xeyran barakallah fiik euh, soxna Khadija ki amul soxna moo xam góor muy jigéen mu njaaloo ak ki am koo xam ne mus na jaar ci sëy wala am na mu mu ngi ci sëy ndax ñaar ñooñu suñu njaaloo yi seen atte benn la wala seen atte du benn. ak kenn ku nekk bu dee duñ benn kenn ku dal mooy atteem incha allah. waaw ñoom ñaar seen atte du benn. waxal ci micro bi ki nga xam ne dafa. Sane dafa njaaloo. micro bi waaw. ki nga xam ne dafa njaaloo te bu dee góor la amul soxna bu dee jigéen la amul borom kër ñooñu dañ leen di door téeméeri yar bu nekkente ne nag dañoo am bu dee ku jigéen la dafa njaaloo am borom kër wala ku góor mu njaaloo fekk ne am na soxna. dañ leen di raj bu maanaam dañuy gas ba mu fóot ñu suul leen di leen xaañ ay xeer ba ñu dee. allah. wa iyaazu billaahi taala. Ah. Hmm? voilà. mu ngoog kon Omar Cissé Omar Cissé lépp la trouvé am na fukki poñ ak ñaar euh, kii di Ibrahima Sané Ibrahima Sané kii bi rek la trouvé fekk bi am na ñetti poñ. Khady Sall Khady Sall am na fukki poñ bismillah dama ci deuxième tour bi Oustaz tayib jazakumullah xeyran barakallahu fiikum kon ñu dellusiwaat ci ñaareelu rondo bi ak Umar insha allah ci alquran karim Cheikh Umar bu ñëwee ci alquran dañ fekk benn aay alquran bu ñuy tere ñuy lekkante suñu alal ci suñuy biir te te fekk tegul ci dëgg aay bi ñuy jàngaloo waaye yàlla subhanahu wa taala nee na ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام بولن لك على البي بولن لك وتدلوا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها وتدلوا بها لولا وتدلوا بها الى الحكام نعم موي بولن لك على لو سين على على نيني سين اها nga kay nga lek paré té ko yoon wala nga nga paré lek al nit ki bay dem dem ci yoon jaay ko doole daal di fexe ba ba ba ba lekk alalam aywa ëppal ko doole ci àll pare yóbbu ko ci yoon tëj lu ko jël hmm. allah barik fiik Cheikh Ibrahim benn aaya ci alquran bu ñuy jàngal ni war alxiyaana alxiyaana lu islam bañ la ma triyaan lañ ko wax ci tubaab jàpp na bu koy tere hmm? bu koy tere waaw bu koy tere waaw wala di wane ne la baaxul daal ah ñëw na suratul xaj inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur te bokk na si jikkoy naafiq bi ko yàlla waxee suratul naafiquun mu fu muy naan noonu qaatalahum allah munaafiquun yi dafa bokk si seen melokaan mooy wor te en tout cas aaya bi bi ma jàpp mooy bu nek suratul hajj fi yàlla di nan inna allah la yuhibbu kull xawaanin kafur naam yàlla bagul bagul wor kat te kuy weddi naam ma sha allah jazak allah jazakallah xeyran barakallah fiik sokhna Khadija werna naam inna allah la yuhibbu kull xawaanin kafur ben aaya ci alquran bu ñuy leral li ñuy tabzir tabzir moy passer passer alal gas gaspillage yaakaar nañ ko wax ci tubaab alal buñ ay buñ koy jàngale ñu ci alquran qawluhu subhanahu wa taala ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين yàlla subhanahu wa taala mi wax ne bu leen di yàq ndax yàqkat bokk na si jëfu seytaane waaw bu leen di gaspillage loolu bokk ñi ñi koy def ci mën a ixwaanu lañ daal tey في حديث آه، الأخ عمر في حديث ينتبه صلى الله عليه وسلم حديث بوي تري نيت كي ري ري ري ري حديث بوكاي تري خولا حديث بوتي واخ رك آه، ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا آه، الكبر بطر الحق وغمت الناس ليغو جيتو موي صحابه دا نيكو امنا كو خام دا بوكو دي سولو رافيت di sañ di di di lalu neex ndax loolu daa bokk ci ak rëy te yow sa diine ñu ne ku koo xam ne sa xol lu toon pepp at mu ci ak rëy dootu àjjana mu ne ko rëy du loolu waaye rëy moom mooy bañ dëgg xeet nit ñi Allah شاء الله الله يبارك فيك wax ci jëw ben hadith yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew wax ci jëw واو نيونا سيونة صلى الله عليه وسلم بمينا أتدرون من الغيبة قالوا قالوا يا رسول قالوا الله ورسوله أعلم أبدا موحلا من الغيبة مي ذكر أخاك بما يكره مي تدو سا فرير كي لو خمانتني دوكو بوغا ديغ بو في نيكي مو ني بو فكيه ben sahabi mu ne ko bu fekkee li may wax ci moom dëgg la yunus sallallahu alayhi wasallam nee na ko bu fekkee li ngay wax ci moom dëgg la mooy sosal nga ko te bu fekkee li ngay wax ci moom bu fekkee li ngay wax ci moom dëgg la dëgg la mooy loolu mooy jëw léegi bu fekkee léegi li ngay wax ci moom du amul mooy sosal nga ko loolu ko sosal faqat bahatahu faqat bahat naam jazakallah xeyran wa barakallah fiik soxna Xadija yow tamit beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi bete ci jikko yu baaxul yooyu buy wax ci kañaan soxor alxasad ndax teewlu nga benn xadis yonte bi sa bu ciy wax muy muy wax ne wala taxaasadu wala tabaagadu wa kunu ibaadallahi ixwaana muy conseil jullit ñi di leen wax ne bu leen di aña kiñaanante seen biir te bu leen di noona wonte seen biir nekk leen ay jaamu ay mbokk wa kunu ibaadallahi ixwaana nekk leen ay jaamu yàlla doon ay mbokk tamit طيب ما شاء الله الله يبارك فيك مدمتي التاريخ Cheikh Omar ci dund yent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na benn xare bu amoon xare boo am na saxaaba yoo xam ne demuñ si woon benn xare boo xam ne am na ñetti saxaaba yoo xam ne demuñ si woon saxaaba yooyu tew bu dee teewlu nga seen tur ak ban daan la yont bi saa si moom la leen tegoon. waaw bis njëkk mooy xare yooyu nekkoon xat mi ngi amoon atum juróom-ñeenteel si gàddaay gi. saxaaba yi ñeenti saxaaba la woon. ki nekk mooy Kaab ibnu Malikin ak Hilaal ibnu Rabia ak Umayya Hilaal ibnu Umayya ak Rabia Murrat ak Rabia ibnu Murra Murarata ibnu Rabia Murrat ibnu Rabia ay naam moom la yàlla di wax wa ala thalathati alladina xullifu xata ida daqat alayhim al ardu bima raxubat ba aay ba jeex mooy sans borom danañ tuub buñ tuubee yàlla jéggal leen daan ni laqad taaba allaahu daal di jeex maanaam daan bi di leen yàlla tubi daal tegoon comme daan lan la woon ba léegi yéen a ngi bu kenn jëflante ak ñoom dipp juróom fukki fan. bu kenn waxante ak ñoom. Mm. ku ñu nuyoo bu ñu la fay. Mm. ku leen romb bu leen nuyoo. Mm. bu kenn jaayante ak ñoom bu kenn jënd ci ñoom ba yàlla sol rek la seen mbir. tay noo gisee tontom. waa daan bi moom moo ñëwul incha allah. daan bi ñëwul mais xare bi ñëw na ñetti saxaaba yi ñëw nañu. daan bi moo ñëwul incha allah. si loolu la ñu wax ak lan leneen daanoon mu leen tegoon comme daan tayib Cheikh Ibrahim yontu bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund ak bi mu génn àdduna am na wenn saxaaba bu ñu ne moo xamoon turu naafeq yi saxaaba bu kan la ak lan la Umar ibnu Xattaab daan wax saxaaba boobu rek ci lu jëm ci loolu waaye yontu bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko borom bi subhanahu wa taala joxoon liste munaafiquuna yi daf ko nettali xuseyfa ibnu ibnul yamaan xuseyfatu ibnul yamaan xuseyfatu ibnul yamaan moom la ko nettali omar ibnu xataab bi mu déggee loolu daal di tiit ci bokk ci munaafiquuna mu daw si xuseyfa mu ne ko ndax mun nga ma nettali bu fekkee sama tur bokk na si naafiq yi léegi la ko doon topp mais à la fin ci yenn riwaaye xadis yi ñëw bokk woon ci Xuzeyfa xamal na ko mu ne ko yow bokkoo ci du yow bokkoo ci mais mais loolu moo tiitloon Omar ndax dafa dafa yaakaar dafa tiitoon boppam est-ce que dina bokk ci ñooñu mais Xuzeyfa dalal ko ni bokkoo ci sallallahu alayhi wa sallam waaw ci mujjantal bi yont bi génne àdduna tay macha allah jazakallah xeyran barakallah fiik soxna Xadija yont bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeeti fi jaar xamal nañu ne benn baahima baahima baahima mooy loo xam ne rab boo ne sabab na nit ki yàlla subhanahu taala tàbbil ko ci aldi ngir sabu benn rab ndax teewlu nga benn xissa bu jàngale loolu benn njaay àll benn baahima boo xam ne bii yàlla subhanahu taala ci sabu baahima boobu nit tàbbee na ci aljanna tàbbee na ci aljanna ah mooy maanaam benn xar wala béy wala muus wala nangam nangam boo xam ne bii ci jëflante bu mu jëflante ak moom ci la ko yàlla tàbbale aljanna ci mbaaxam mooy benn jigéen boo xamante dafa yoroon muus donc non euh, non benn benn waay boo xamante ni dafa ñëwoon romboon benn xaj. xaj bi daal di mar mu daal di koy tànkal mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaj boobu dina sabab mu dugg aljanna. sabab boobu la ko borom bi subhaana wa taala jéggalee tabbil ko aljanna. waaye macha allah. aywa kon euh, Omar Cissé Omar Cissé am na fukki poñ euh, kii bu mujj bi dafa. indi ki bi waaye wul uh, dan ba lolo tax ibrahima sané lepp le tour amna fukk poñ ñaar ki di hadisal amna am fukk poñ ak ben mom tam dafa ki ba nopi ñu dor ko stage mayer ko sans bu lolo indi affaire mo tax ñu indi ko fu ben poñ voilà ñu dem ci final bi inshallah allah tayib kon ñu delluwaat ci alquran ak uh, cheikh omar ben ay ci alquran buy lebar buy leral ni kat euh iblis sabab tabib sawara xeb adama la won iblis xeb mu xebon adama mo sabab alkandem ay bi ñu jàng lool inshallah moy muy surtu araaf bi yàlla netali wa manaaka an tasjuda limaa xalaqtu bi yaday astakbarta am kunta min al aali dafa la tax lan moo tax ma koy sujjootal ndax man maa koy moom mu suufee te ñu bindee ma si sabar moom ñu bindee ko ci suuf naam ana xayru minhu naam ana xayru minhu naam naam man maa ko gën kon xeeb na aadama alayhi salaatu wasalaam allah yubarik fiik wa jazakallah xeer al ax euh, ibrahim ci alquran ni yàlla subhana taala mu ngi leer benn aay moom bëggul nit di dox ci kaw suuf di rëy rëy du ngand ngandalu يلا بوغول كي دوخي نونو اي بني ني جانغلو سي القران واو نيونا سي سوره اللقمان في بروم سبحانه وتعالى دي سي كونسي لقمان بومي يخ ولا تسخر حدك للناس واغدد من صوتك ولا تسخر حدك بابام بوبو سا في بروم بروم بدي واخ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تح... ان سوره العسره ولا تمشي في الارض مرحا إنك لن تبلغ الجبال إنك إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا نعم نعم مو وفوف وسي سورة الإسراء لنك لن لا وفوف آية بل آية بل متك آية بي وبرم بنا بو بول دخ سكو سوف دي ري ريلو نخ إن إنك باح. mënoo bëtt suuf si <laughs> tey macha allah jazakallah xeyran barakallah fiik euh, Cheikh euh, ah, afwan soxna Khadija indi benn aaya ci alquran buy wane ni tuumaal nit njaaloo lu rëy la mais nit ki bu ñu ko tuumaalee njaabo am na charte yi taxaw pour kooku islam teg ko li nga doon wax sànq atte bi nga doon wax sànq ay bi ñuy jàngal charte yooyu kiy tuumaal nit njaabo foog mu indi charte yooyu أيوة إن شاء الله إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادتهم أربع شهادات بالله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدة نعم يا الله سبحانه وتعالى مي وحنا نيغا خامتاني ني داني توما نيت جالو تا اندي سيده دنجلي دور 80 آه، يار جوروم نيت tayib ku tuumaal nit njaaloo te andiwuloo ñeenti seede yow lay islam dóor juróom-ñetti fukki yar tayib wér na ah, ah naam waaw ah, acca demal naam léegi demal ci culture générale bi directement heure bu jot culture générale tayib saqafatul amma culture générale insha allah ah, axi Umar xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ku ci gën a xam li dagan ak li xaraam saxal ko ci kan la dem Muaz ibn Jabal Muaz Muaz ibn Jabal Muaz ibn Jabal sahih al akh Ibrahim xeetu yent yàlla Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam am na ku ci gën a am kers ginaaw yent bi sallallahu alaihi wasallam saxal ci kan la dem ku ci gën a am kers waaw jàppale ko oustaz. non may ñëw may ñëw. mais temps bi temps bi moo jeex. ah kii nii ah kii nii Abu Aboubacar. Zunnurayn Ousmane Ibn Affan. naam. Khadija. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ki ci gën a wane njàmbaarte ci xare ginnaaw yonent bi sa xel ci kan la dem. ki ci gën a wane njàmbaar ci xare. ak sujaa fil harb fil qitaal ci xeetu yonent bi ginnaaw yonent bi kan sa خالد بن الوليد ها خالد بن الوليد علي بن ابي طالب علي, علي بن ابي طالب ما شاء الله هذا كان معروف في شجاعته في الحرب والقتال يسا إيه، جزاك الله خير اها فوالا كون اللي في ام موي ساني ساني امنا امنا فكي بون اك جروب نيار 17 بوين موم تي فين بي دال لا خاوا دورا كي سي بيان euh ki xamni moy khadi sall soxna khadi sall euh am na euh, voilà euh, euh, soxna Xadi Sall am na ñaar fukki poñ ak juróom benn vingt-six